yi nuy nañ leen bu baax a baax ñu ngi leen di ziar foo leen mënti nekk amaat mbégte jàkkaarloo waat ak yéen sur la 7 TV la télé qui nous rassemble nous rassemble ci seen émission 7 voix du cœur tey nag ñu amaat mbégte rek ñëwaat ànd ak yéen ci li nga xam ne rek mu ne ci réew mi ci li nga xam ne moom la nit ñi di dundu ñu ne fii jamono ji ñu nekk muy euh, rue 22 angle 23 rue 23 angle deux ci Médina ñu ñëw euh, seet si ku ñuy wax maadi Diop maadi Diop nag di ndaw boo xam ne mi ngi judd woon en 1988. waaye nag euh, le 10 le 30 avril 2010 euh, amoon ndox boo xam ne daloon na ko muy ñu accuser ko li nga xam ne mooy viol ba daal di ko ci tëj fukki at yoo xam ne nee na laalewu ci defu ci jegewu ci muy affaire bu yéemee muy ku am foi ku am ngëm-ngëm euh, ku mën a muñ dund ko ba daal di ciy génn ba mun a réintégré waat li nga xam ne mooy société bi muy exemple kon nag tey moom la ñu dalal fas yéene waxtaan ak moom ci loolu ak nag naka ko dundee woon léegi léegi lay doon ñu bàyyi ko mu nuyoo Mady Diop nuyu nañ la. maa leen di fay. Mm-hmm. maa ngi nuyu ku nekk sa tur ak sa sant di ñaanal kilifa diine yi kilifa aada yi di ñaan réew mi ñëpp am jàmm. maa ngi mm-hmm. euh, fay nañ la Mady ngay euh, artiste. de profession euh, ma bàyyi la nga wax ñu ci li nga xam ne tey moo waral ñu seet si la fukki atu kaso ci ku dudd ku juddu ak 88 muy lu yéeme. Euh, naka la demee loolu. waaw man dama nekkoon fii ci Simba. Mhm. doon ku ku teel a daal. Mhm. ku am tur am bayre mbooloo. nekk sama xaritu waa kër tamit affaire yooyu suñu waa tamit bëgg ma lool te lool lool lool. sama maam yar ma tamit xaw ma sama yaay comme sama nijaay bi lu mu leen expliqué sama maam moo ma yar. Mhm. moom moo ma jàngal tëgg sabar affaire yooyu man damay tëgg. di fecc di simba affaire yooyu. fii di simba jékki-jékki simba bi dem ba ëpp ma doole fii sama tur après si laa jógee fii dem asalem mhm. am benn gaayen bu ma fekkoon yàlla na ko yàlla yërëm ko àjjana moom laa fekkoon affaire di simba affaire yooyu man bu ma solwul sax simba bi du demee noonu mhm. affaire yooyu léegi mu may laaj ne ma yow lan moo tax ñun bu ñuy simba doo simba des man na ko man nit laa mhm. doomu nit des fois sonn mu dem ba commencé ne man damay diiranteeg moom mbagg daal mm-hmm. xam nga doomu aadama ku nekk daal yow fi ngay mm-hmm. waaw fiiraange mm-hmm. waaw moom li mu fa amoon bi mu ñëwee dafa mel ni moom maanaam nit ku nekk yaa xool ku la neex nga bëgg ko ma ñëw nit ñi bëgg ma dama defaral lu ne affaire yooyu si la demee nag ci benn xale bu jigéen ne ko da ngay dem ne Madi moo la violé moom Saliou suuf agent booba saane ñoom ñoo la violé mhm. affaire yooyu quoi ani ñooñu ñooñu ñoom ñooñu ñi ngi fii mhm. ci nga xam ne koo xamante ne moom maanaam suñu waa kër ñoom boo bañ leen ne waxu viol ñoom dañ dañ ne loolu mënul nekk maa de mën nga ko tudd ci leneen sa mhm. viol euh, ci la dem euh, wax ak kooku waaw si la dem wax ak kooku bi mu demee wax ak kooku ñun ñu ngi doon simba après si lañ déggee jigéen ñi chaque instant ñi may woo maari maari yow li ñu dégg dégg la li ñu dégg dégg la ma yéen lan ngeen war a dégg ñu ne ma daan ko dëkk fii nee na yéen ko violé quoi ma ne yéen waxu dof yooyu mooy lan mhm. pour man ñoom dañuy foo quoi ndax doxuma ci affaire u ñàkk fayda mhm. doxuma ci loolu période boobu rek man ki ma amal doom période boobu mi ngi toll ci ay waaw mhm. maanaam nekkul ci état sax instant mi ngi téye sama doom Mm-hmm. boobu am na doom sama doom sama doom instant mm-hmm. yi liir la daal. Mm-hmm. maanaam man tal naa leneen lu dul ay nekk ci ay jigéen. koo xam ne jigéen ñi ñoom dama simb pare fukki jigéen topp ma ne dañ ma nopp. suñu waa ko dañuy gis lool ci man xam lool ci man comme boo ma nee maa di jigéen ma. la violé ñoom dañuy da leen di jaaxal. da leen di jaaxal waaw parce que. maanaam du jigéen moo la manqué wu. waaw waaw man du ma manqué sax. ba naan damay violé damay violé jigéen. ki la waxoon moom nga violé xam nga ko. xaw ma kooku après laa koy door a xam bi ñuy juger bi ñu leen di juger mhm. laa koy door a xam mhm. xam naa ko ni daan na ñëw di seetaan nii quoi mais réellement laay door a xam ni comme kii moo ne ñun ñoo ko viol mhm. mais xam naa ni moom dañ ko ko digal dañ ko ko digal quoi da ngay comprendre da ngay damay xam ni kii dañ ko ko digal tamit damay nangu ne yàlla moo moon damay dugg kaso. Mhm. mais ci loxoom la koy jaarale ak loxo keneen ak keneen. Mhm. loxo war a jaarale ndax sëñ Tuubaa mi ñu gëm sax bi muy bi ñu koy yóbbu jeewal daa am si fu ñu ko jaarale. sàmbalaw la mhm. et cetera et cetera ay doomu aadama lañ duñ dara. lu ñëw dañuy xam ne bu neexul yàlla duñu dal. mais bu neexee yàlla. neex na yàlla quoi day ñëw. man dèjà sama dund dafa dafa yàgg metti mhm. gisuma yaay gisuma mhm. papa. Euh, da ngaa juddu. Euh, sama yaay dafa paralysé. Mhm. sama maam moo yar. naam li ñuy naan naam man mosuma naam sama maam moo ma doon jox biberon affaire yooyu. sa incomprendre. sama maam laa xam ba ñaax sama néegu maam sax laa doon fanaan. dama doon teel tëdd timis bu jotee tëdd naa mais damay dem tëgg ji sabar fii simbi ji fii. maa di fii maa di fii maa di fii mhm. mais li ñuy wax rek siiw di jaami borom waaw siiw di jaami borom yoonu mhm. ndaw du waaw yoonu ndaw du gaaw mhm. maanaam nit boo simba sax di nga wala ngay def dara di nga jël muslaay mais yooyu nekkul ci man tellement danga nekkoon xale yaa ngi juddu 88 boobu yaa ngi am ñaata ay 17 ans yooyu waaw ay ans yooyu doon booy bu ndaw affaire yooyu ñi fekk ñu yaraax léegi kooku ma la doon wax ku góor kooku noonu moo ñu fekk ne kaay leen wuyu police joxuñu ñu convocation joxuñu ñu dara xam nga. police boobu da ngeen doon simba. yaraax lan doon simbee. Ah. moom mu moom mu war a simba asalem simbam amatul ndax lan man jóge naa asalem man maa ngi simba yaraax ak sama xarit. Mm. simba si fees del del asalem di jóge foofu di dem ba. yaa waa asalem ak waa Colobane rek. Medina ñu bari dañ doon faax fii di ñëw seetaan simba pour uniquement rek ñoom nañ may seetaan. Mm-hmm. ñoom loolu moo leen ñor. ñu ñëw foofu si si fees dell moom mu fekk ñu foofu instant yi man maa ngi waaj a génn mu ne kaa leen wuyu police mhm. sam benn xarit yaayu zaal ne ma yéen dañ leen jox convocation lan ngeen def ma ne ko ah xaw ma dem moom de nee ñu ñëw wuyu police pour man nañ dem wuyu police ñëwaat eggali simbu jàmbur quoi ñun mhm. ñi ñuy xaar affaire yooyu yaay zaal ne bu leen dem da ngeen dëgër boobu àll gay tamit sam benn gayan maa ngi koy nuyu àll ne bu leen dem Um, waaw ma ne dem xam nga boo waree dem fenn wala. fu nga war fa mm-hmm, nekk da wuy ji. waaw da ngay par la force da fay dem heure ba da nga fay nekk heure ba. Mm-hmm. si noonu ñun si lañ demee bi ñëwee dugg policiers yi ñu ne. yéen ñaata lañ woon. Mm-hmm. cinq lañ woon ak Ali Boy cinq lañ ñun ñëpp dem léegi bi ñu demee policiers ñu ne leen ñun de dañ ñoo woon ñun ñooy booy simbakat yu dëkk fi policiers yi ne leen lan la ñu ne ko ah ñu ne dañ ñu ne wuy leen ñu ne leen booy dem leen. ñu dem bay dem ku góor ki ne non oh, ñii ñoo violé doomu jàmbur quoi man na ko ñan ñoo violé hmm? bi di waxam moom takk der buy wax ak yow. Hmm. am na nooy waxee ak moom da lay mere policier bi di wax ñu ñu koy jaay réew ne ko waaye ñun dañu am ay violé ay jigéen dimbali ñu waaye affaire yooy hmm. mu ne ñu booy toog leen fii a si la ñu jëlee ma dem woo sa maam sama kii sama sama sama rakku yaay bi. mu woo maam bu jigéen mu jugee. West Foire ñëw fa affaire yooyu laaj ñu ne ko ah ñoom de violé leen ci. mais ñu hmm? wóoru ñu xamuñu li xew. Hmm. affaire yooyu mais li lay wan nii buñ la bëggee tëj dinañ la tëj par force. Hmm. parce que dañoo maanaam dañoo téye par benn par benn mel ni ku ñu torturé ñu ñëpp ba pare da nga jël bic jël fooy siñe par force ku jàngul xamoo xamoo moom lan la war a signé. ci foofu si saa si déggoo ñun police ba dañoo signalé par force da ngay signé par force. doo yéen ñëpp ñun ñëpp. kon yéen ñëpp a tëdd 10 ans yi. ñun ñëpp a tëdd mais am na kuñ si njëkk a bàyyi. Mhm. Saliou. Mhm. moom bi ma amee 9 ans at kii moom lañ ci bàyyi quoi. Mhm. c'est incompréhensible moom lañ ci bàyyi. mais ñi ciy dese dañoo tëdd 10 ans. a tëdd 10 ñeneen ñu bàyyi leen camp man seul lañ jël ma da ngay yóbbu euh, la Thiès muy lu doy waar euh, loo xam ne euh, dinañ ci wéyal léegi léegi léegi mais laata loolu dañuy dem seetaani témoignage yu papam bi nga xam ne moom moo ko jàngal métier bi muy def nii muy aar daal dellu soit léegi ci waxtaan bi sur la 7TV. maa di yaayam sama rakk la maa di aar muy def yëpp maa ko jàngal sama taaw mi ngi Espagne sama doom bu jigéen mi ngi Espagne. kii day fecc kii day tëgg ñi dañuy woy c'est la famille mais Mady daal si gàttal daal bu mayee problème ñun ñëpp a dof xool nga am benn tout tànk bu nekk si kër am problème mu dix ans xam nga dix ans c'est pas c'est pas c'est pas saa waay Mady daal oui ça nous a frappé waaw boobu sama benn sama mag bu jigéen moo gaañu mu ñëw fa le lendemain laa dégg na jàpp nañ ko ma ne kii démb la fi ñëw ñu jàpp ko te kii mu def ñu ne non defa violé benn femme moog sept personnes xaw ma lan nii am ma moi je dis non léegi ñu jékki ñu jugé ko tëj tëj ko dix ans ñu ne xoolal nga am sa doom ñu tëj ko dix ans ça nous a frappé mais yàlla dafa nu may xolu muñ moom tamit. waaw muy jàmbaar mais am naa sama doom bu jigéen mi ngi Espagne moo daan la ko dégg day conni sekk la tudd moo doon jël avocat moo doon dem si sëriñ yi xoolal ku lay sa sœur di la topp pendant dix ans sëriñ aboka añ réer ndekki kii nu mu tudd so ba ba pare soo feebaree ñu lay faj di la yónnee ay pour nga jënd ay garab ak tout tout tout pendant dix ans ça c'est des sous mais san yàlla daal def na li gën tëdd na ko génn na ñu ngi sant yàlla. aussi naa la benn boo xam ne dañ ko fàtte kii bu ma juddu yaayam dafa paralysé woon kii bu ma juddu yaayam dafa paralysé woon kii xamul yaayam kii sama yaay la xam. parce que xamul ne mun a expliquer bu baax kii bu muy judd yaayam dafa paralysé kii sama yaay la xam sama yaay voilà muy maam mais dañuy xal da koy xalaat rek si si ah mais saa waay nu ñuy def gëm yàlla rek moo ko yëgal kan waaw moom je sais pas loolu xaw ma ko mm-hmm. xëy na loolu dafa nekk yëg-yëg ndax bi nga nekkee bébé ki lay sa yaay paralysé di la toppatoo di la boot saa kooku même bu ko bant laalee di nga ko yëg waaw tout moom da nga koy nangu rek xam ne yàlla moo ko dogal teg nan la ko nangul ana mu tey jeexul parce que Cheikh Fall et puis tam bu mu génnee bu mu ñëw ñun ñun rejeté wuñ ko dañ ko boole si biir di ko jàppale sama doom sama taaw la mi ngi Espagne mi ngi tudd Ibrahima Dieye li sama doom bi wax léegi dëgg la da ko jox xaas bu bari ne ko loo bëgg mu ne ko jënd ay tubay ay yëre ay dàll jaay di jaada yooyu ñu jox ko mais comme que yow aar nga bëgg aar mu nekk si yow yooyu waaw ça passe mhm. donc voilà commencé na ñëwaat bokkaat na mi ngi si terrain bi mi ngi géem comme ñëpp mhm. waaw maanaam sëñ Touba Cheikh dina ko jàppale incha allah. kon nag euh, di jégalu sax euh, nijaay la ci moom comme ni mu ko waxee euh, mu bokk ak waajuram bu jigéen ndey ak bàyyi muy lu doy waar lu yéeme waxee na xol ndax nag dafa metti fukki ak ñu tëj la ko ci loo xam ne dañ la ko tuumaal yéegoo tinoo ba ngay wuy ji sax amul convocation yaa jël sa initiative bopp dem wuy ji te yaakaar naa ku def doo sañ a dem wuy ji kon Mady dama lay bàyyi nga àddu ci li sa nijaay wax muy lu daw yaram. loo ci dëgg rek moom sama ndijaay la mhm. moom du man rek la jàngal aar ñi muy jàngal aar fii bëri moom at mbay jee fay ak ñoom Moussa Fay mhm. Badara Gueye Papa Seck yàlla na ko yàlla xaar xaare àjjana ñoom ñoo doon ànd doonoon groupe bolocage di ànd ñoom mbay jee fay mhm. moom mu nekkoon xalam deux fii bëri nit ñuy tëgg ay ñoom maturin mbay njagandi ñu nekk ci waali Seck ñoom bàyyi dem ñu bëri jaar nañ ci loxoom mu doonoon grand artiste dem bitim réew Canada nekkoon fa. Mhm. di tukki di ñëw. njaboote ñu daal maanaam du musuñu musul lekk bañu. Mhm. bëgguñu am ci ñun yërmande jàngal ñu aar teetee ñu. Mhm. du defaral lu ne. Euh, tey jii bi mu fàttalikoo sa waajur bu jigéen ko xam nit ak yaayam mm, xam na lu sori la. Mm. lan nga sentir nga gis ko mu tóor ay xewalam ndax maanaam mboq bi dugg ak nattu bi nga xam ne dal na sa kaw nga nangu. dëgg moom sama magu yaay la te moom dafa bëggoon sama yaay ci liñ may expliqué parce que man sama yaay xam ma ko. man sama maam laa xam. Mhm. sama papa tamit xaw ma ko bi muy gaañu. boobu xale nga xale laa xaw ma ko. man mhm. lépp sama maam moo ma ko doon defaral moom laa xam. Mhm. ak samay sama sama benn mag Ibi Dieye mooy taawam bu góor bi. ak Ndeye Thioni Ngoné Diabo ñoom ñëpp. kenn seetaan ñu ma suñu waa kër ñoom Sata Diallo Kole Baas Kumbis ñoom ñëpp. mais daa taxaw waaw ñooñu ñëpp dañ ma taxaw. Mm-hmm. mais daa am koo xamante ne man mënu ma ko fàtte. sama rakk la sama xarit la sama seex la Mass Mbaye kooku bi may jàpp dafa jooy dafa maanaam dafa xaru sax bëggoon na ko def. dañuy dem déglu ko daal di ñëwaat léegi léegi si waxtaan bi laataa ñuy wéy ak yow ci li nga xam ne rek mooy seen relation yéen ñaar yéen ñaar muy Mass moom moomu léegi léegi lay doon sur la 7 bi ci seen émission 7 voix maam dañoo ànd ànd bu rafet ñu ànd xale ba mag ñu ànd moom dugal ma ci aar xam dugal ma ci fecc jàngal ma fecc donc dugal ma ci simb donc tey suñ ma laajee ci moom dinaa ci mën a sawar bu baax nag wax ci parce que moom dafa fu ma féete woon don doonte ay maag moom doomu ndiyaay doom bàjjan lañ yaayam sama bàjjen la mais moom ba may ba nekk xale di jàngee parcelle di ñëw vacances Médina bi ñëpp bañee ànd ak man moom moo àndoon ak man kon donc ñaan ànd bu rafet ñu ñu ñu ñu jaar fu ne nag dugg ci lu ne defandoo lu ne mais yàlla def na yàlla def après bi ma wanee ginnaaw nekk ci ay problème ma ne non duma ko mës a seetaan du ko mës a bàyyi ginnaaw parce que moom mosuma bàyyi mosuma seetaan lu ñu am dañ ko daan bokk ba nit ñi dañ daan defe ne sax ay seex lañ man ak moom lu mu am bokk kook man def ma rakk bu mu bokkal ndey ak bàyyi mu nekk nag ci problème mu metti trop nag mais ma ànd ceeg moom ànd ceeg moom ànd ceeg moom ba mu jeex tàkk tàkk tàkk tàkk tàkk te ba mu ñëwee ma ne ko yoon bii nga ma bàyyi woon. ma xaali ma xaali ko ba mu gën a yaatu kon yoon bii ngay delluwaat bu déglu ma sàmm bul déglu ma demba bul déglu kenn yoon bi yaa ma ci bàyyi woon ma continuer ko ba tey jii ku ma xam ci aar nga ma xamee ku ma bëgg ci aar nga ma bëggee kon donc delluwaatal nga nekkaat sa place nekkaat fi nga nekk tey jii suñuy wax maas maas maas maas maas maas tay la ndax démb maadi maadi maadi nga daan dégg xëy na cat moo sew te mees ma koy ñaanal yàlla nag yàlla ko yàlla dafa jàmm yàlla may ko gudd fan ak wér ba mu dund lu baree bari xam lépp lu newoon ci ginnaawam effacé wu daal di dem mu xool dina ci kanamam te xam ni moom jàmbaar la góor yàlla piir la Baay Faal piir la. waaw yéen tamit maa ngi leen di gërëm waa 7TV di leen sant di leen gërëm bu baax tamit. Euh, Mady euh, sa digganteeg Mass muy lu sori euh, nit tëj nañ ko at nga topp ko bu mu génn ñu tëj nit ñaari weer nga topp ko bu mu génn ñaari at kazaalika mais fukki at. Mm-hmm. ku la ci topp mosul bàyyi. moom ak ki nga xam ne dinañ ko xoolaat léegi léegi laataa loolu. ñu mm-hmm. wax ci Mass. waaw Mass man ak moom lañ yàgg. Mm-hmm. dafa ma bëgg ma bëgg ko mu am ci man yërmande lool lool lool lool lool maas maa ko jàngal simba jàngal ko fecc man ak moom doon dem parcelle nekk fa si yaayam mhm. jékki-jékki jóge parcelle dem biir fajaa nekk fa mhm. période boobu Waly Seck mii di way mhm. ak ñoom Mbaye si Ndiaye ñoom Benjamin ñëpp ñoo bokk fu ñuy tëdd bokk fu ñuy fanaan même néeg Passer di nuyu waale tamit suñu waa kër yooyu ñoonu ñoom Rama Seck ñoom Thion Seck Xaadim Seck Xaadimu Ndaw Mari ñoom ñëpp maa leen di nuyu parce que ay faramaale leen ay doomu ndijaay doomu bàjjen lañu waaw hmm. ñu nekk foofu di fanaan affaire yooyu moom moom naka la yégée ne jàpp nañ la moom maas mi moom moom nag moo njëkk fekk asalem at ki ma amal doom ne ma jugeel fii nga nekk fii du sa jëmukaay. Mhm. dellu si Medina quoi mais xam nga boo reepee. Mhm. ma dëgëranteeg moom boobu muy xëcc na ma bay jooy man ne ko par la force dew ma maa fii. Mhm. mais période boobu doo xam yow. lan moo lay xale la 17 ans ndax maturité bi. ndax ñi ñi la toog mbooloo yi maadi maadi maadi maadi maadi maadi. yooyu da ngay naan yow garawul ko amul problème après. si lañ ma tëjee mu ñëw cent mètres di ma seet si. Mhm. ñëwaat campénal di ma seet euh, bi mu fay njëkk a ñëw seet si la naka la demee. mu bi ñu njëkk gisante ma ak moom nag. boo fekk na lu ñuy jugé la ba pare. jour bi ñu may jugé bët yi daje ma xool ko nar a mu xool ma di jooy. Mhm. ñuy xoolante rek quoi ba juge bi mi ngi may naan eh, yooyu quoi. si la génne noonu quoi pour rek rien que man mu mun a wax nga concentré xam nañu fekk mu ngi taxaw du mu mun a wax mhm. affaire yooyu après ñu def ñu renvoyé ñu génn affaire yooyu mu ñëwaat fee ñëw si ndeycoon nii sama mag bi nekk Espagne sama mag bi jox ko yére affaire yooyu moom mu génnee ay dàllam yi muy sol day jënd dàll sax photo sax na ma lii rafet na indi ko ma ne waaw mu ñëw dugalal moo indi dàll di ma indi yére di ma indi lépp mhm. mu doon koo xamante ne dafa baax. Mm-hmm. amul problème bu baax la topp jusqu'au bout waaw da ànd mu neex ànd mu nakari. waaw dëkk temps booy. Mm-hmm. Euh, lan lan nga ñu euh, mën a wax ci loo dund ak moom la dul fàtte. waaw man lu ma lu fàtte dund ak naa moom lu ne. Mm-hmm. mais loo xamante du ma ko fàtte. bi ma ko njëkkee gis ak Thiès nu mu soree mu toxee naaj ñëw Thiès. te bi mu fay ñëw tombewul suuf visite. Mhm. mais su boobu da doon ñaan. ma xool ko ko quoi xam ni kii moom kii aw ma lu ma koy. mënu ma ko fay daal. mënu mhm. ma ko fay dara dara dara dara dara. Mhm. ak tamit avant ma problème bi ñuy nekk parcelle. bokk benn lal bi nuy tëdd. muy tëdd nii muy tëdd nii waali di tëddee nii ñee di tëdd nii ñee di daf ma yàgg topp. daf mooy maanaam. ba ba nga ko gisee Thiès mu dugg si euh, ndax mën nga ñu ñëwalaat ci loolu lan nga sentir. waaw non instant yooyu dafa ñëw ne ma maa di ma ne ko waaw bu la dara jaral nga génn jël bi yoon bu bon yow tëgg lan la xamee fecc lan la xamee loolu dafa nekk sa deret quoi. Mm-hmm. ba léegi boo génnee li nga fa bàyyi woon nga fiy fekk yow boo leen rawul ñoom duñ la raw. Mm-hmm. bu dara jaral nga génn topp ñu bon ñi xam nga foofu ndeysaan daa mim dañuy dox sa esprit mm-hmm. ñii dañ lay waaw boo génnee yow bul demati sa gaale nii nii ñii naan naan boo génnee liggéeyal ñii ku nekk ak sa sa xalaat waaw mais man du ma def mm-hmm. man damay xalaat doo def te tamit am nga ñu la conseiller ku ci mel ni Ndeye Cuuni moom it muy ku soxi si yow waaw waaw mm-hmm. moom laay xoolee sama yaay parce que li ma defar ku du sa yaay mënu ko bu dee sa mag sax am na fu muy yam amaana bu dee sa mag am na fu muy yam mais kooku dafa mel ni mooy sama yaay ba bi muy tukki daf ma doon laaj maa di man dañ ma bëgg a yóbbu dama war a dem nii mais man bëgguma la fi bàyyi mm-hmm. man xam naa ni li ma jot a tëdd cinq yeneen cinq yi yàllaa xam naa muñ ma ne ko noonu demal boo demee maam daag mi ngi fi mm-hmm. maam daag sa rakk la sama mag la mi ngi fi moom tamit maam ndaak tamit dama koy sant moom mhm. parce que li day coon di doon def après bàyyiwu ci dara dara mhm. moom bu ko yokkul mhm. bàyyiwu ci dara mais day coon maanaam bu ma toogee benn jour sax indiwul lekk sax day génne wu mais mujj gi dama ne ma ne kii mi ngi war a dem rappete ji di war a am contrat di joué ji war fee ñëw war a war fee ñëw war a dem fee kon dama koy sonal comme naa ko ne moom nay bàyyi di ma déposer ay añ ak ay affaire yooyu quoi. Mhm. léegi day obligé di jox maam ndaak wala moom ñuy kii ñu indi xaalis di ma ko déposer. yow koy ngay mais mhm. tamit am sam benn yaay kooku tamit mënu ma ko fàtte. Mhm. Fatou Géwal Diouf kooku dafa ma defaral loo xamante ni du ma ko fàtte ilaa yow bi diin moom ak doomam budi dañuy togg booli comme booli ngénte yi lañuy ñuy chaque ajuma indi ko Thiès. Mhm. amaana mënoon nañ ne mardi rek la ñuy sees indi benn bool. man kase maa koy lekk bu boobaa te man kase du ma ko lekk am na ñu ma fa nekkal am na ñoom seen waa kër ñu ngi leen di seetsi. am ñoo xam ne seetsi wuñ leen. Mhm. mais booli lay indi indi ay beñe yëkkati xaalis bu bari jox ma. jox la la ñuy lekk moom suñu ay Fatou ay garde ci la ñuy lekk. Mhm. ay détenu ci la ñuy lekk. dañuy lekk ba koy ñaanal te xam sax ku ko togg maa di ko togg lii yàlla ko yàlla fay. kon kooku tamit. mënuma koo fay. Mhm. bu ma génnee ñëw këram mu yëkkati xaalis bu bari jox ma ko. mais laataa ñu ñëw ci boobu bi nga génnee maa di nañ taxaw tuuti ci sa jugement naka la demee woon bés boobu. waaw sama jugement dañ taxaw nii ku nekk ñu woo la laaj la na ma yow Mamadou Malick Diop loo seq xale bu jigéen bi nii quoi ba ngeen koy violé affaire yooyu man xale bu jigéen bi moom dèjà nee na ñun ci gàlle asalem bi lañ ko violé. Mm-hmm. te imaginaire gàlle yi asalem bi jegante na benn peeru jegante boo xamante ne boo sëqatee dañ lay dégg. dañ te rawatina ci juróomi ci li mu wax mu ne juróomi personne. Mm-hmm. te juróomi personne yooyu ku nekk yow jigéen ñi ñu la topp ëpp na juróom jigéen. Mm-hmm. yow yaay daw jigéen ñi. c'est incomprendre. gis bi laaj ko na ko lool lan la mën a nekkee ñu lay violé ngay yuuxu affaire yooyu. mais moom amoon na certificat médical ak yooyu yëpp. fa laa bëgg a jëm mhm. boobu noonu boo demee fay da dem fay boo fayee ne ki diw daf ma violé dañuy ñëw rek bind hmm? waaw comme li am jamono ji topp dossier nii nii hmm. maanaam justice bi. Euh, daa gën a mu ne waaw waaw mhm, non période boobu dañ lay jaay doole par la force mënoo si tous. Mhm. léegi nga taxaw ñu entendre leen. ñu entendre laaj ma ma ne leen kii mosuma ko def lool kii man ak moom seexuñu lool kii tey laaxu tey laaxu xam nii bu baax nii mais daan na ñëw simba simba ji jeex mu ñibbi dem yoonam man maa ngi ci leneen bi simba bi jeexee maa xool man nan laay sangu jee toog jàpp sama ñaambur man ak samay xarit. affaire yooyu mais affaire yu viol yu fayda yooyu wala waaye diwuma tamit quoi. xam naa ni ngay def ba nekk jigéen. xam naa loolu bu baax nga xam ne jigéen ñi dañ ko topp affaire yooyu dëgg jigéen ñoom ñooy suñu yaay jigéen ñoom ñoo ñu jur waruñu wax ci ñoom dara. mais erreur day am. moom du moom dañ ko ko digal rek. Euh, léegi tey jii euh, ba affaire ba jeexee. ñu wax la annoncé ne dix ans naka la demee ñëwul ñu ci loolu. waaw après dañ ma fekk chambre 4 yaay Mamadou di Diop affaire yooyu quoi jox ma fooy bi. kon si saa si duñ la wax liñ la teg. waaw non dañ koy bind ci benn fooy. Mhm. ñëw ba chambre bi nga nekk woole ba nga ñëw jox la ko. yow yaay xool bi ma xoolee ma gis dix pour man ay dix jour affaire wala dix semaines quoi ma ne kon man durant bi ma fi xaw a nekk nii yëpp. jii lañ ma tëj quoi affaire yooyu quoi ma laaj sama benn gars ma booy dix ans lañ la tëj foofu nag sama àdduna commencé jaxasoo ma ma man sama maam mag la. Oh. sama bu jigéen mag la. te samay frères yu bëri ñii ngi kaaw affaire yooyu quoi ma war a at bi ma am te ba pare sama doom bu jigéen. mi ngi nan laa ko waree tegee bët. yooyu di ma commencé turbuler quoi may toog commencé ne man sama life ma ah naa ko yàq rek mu yàqu benn paa ma boo ci nekkee yàlla bu la bëggee da lay teg natt bu la bëggul la teg natt. ku yàlla boobu ñi nga bokkaloon chambre yëpp ñaata lañ doon tëj yaa ci ëppale. non am na bu ma Hmm. am na ñoom ñi perpète lañ leen téye. ban chambre nga njëkk a def. man douze laa njëkk a def. chambre hmm. xale yi fa laa njëkk a def. am ku ma euh, mais mais man li ma jaaxal maa di boobu yaa ngi am 17 ans comment se fait-il au lieu de forber ñu yóbbu la 100 mètres. waaw xam nga 100 mètres ci mineur. 100 mètres daa am ñaari néeg yoo xamante ne dañ fa nekk. 12 hmm. 13 maanaam bu la mënul yóbbu fenee yow fa lañ lay yóbbu. ah ok. 5 comprendre. léegi néeg boobu ay xale rek a fay nekk. ñun fa lañ nekkoon affaire yooyu après ma jóge néeg boobu dem chambre 4. foo nekk daa am ñoo xam ne dañuy dégg sa tur maadi maadi ma commencé dégg sama tur maadi ma ne mais man ñii bu ma fi ñëwee yàgguma fi mais maadi maadi chaque instant damay génne sax di dem ci bitig bi eh maadi groupe nit doogaale ma toog di wax ak man expliquer quoi am ñoo xam ne liñ ma xam nañu ñoom liñ ma tëj. Mhm. defu ma ko quoi da leen metti quoi te xaw ma leen sax. Mhm. mais damay naan mais garaaw man ci biti maa ngi fa nekk am tur. ñëwaat fii am tuur mais yenn ay tamit lan la quoi. dama ne mhm. garaaw coow jiw am problème. après sama benn benn paa ne ma da ngay gëm yàlla lii du dara ñu la mag fuuf ñu ma fi nekk ñoo xam ne dañ leen tëj ba ñoom dañoo découragé seen life et buñ mus a découragé Serigne Touba sax tëj nañ ko sept ans xaw ma lan la nga expliqué ma quoi dee ma deel mhm. julli. affaire yooyu après su leen jugee fee dem Liberté 6 ma fekk fa ñoom Palaay Fall ñoom Alex affaire yooyu ñu faral ma ijji falan wàccee kaamil hmm? jàng fa alxuraan après foofu dama toogaat santaat yàlla parce que bi may nekk fii daanu ma jàng alxuraan hmm. xaw ma lu yàlla wax xaw ma lu yonanti wax xaw ma dara man li ma xamoon mooy dem simbi ji teggi ji ñëw man loolu laa xam dem simbi ji teggi ji fecc ji ñëw mooy lool hmm. julli du ma ko def aw ma temps mais weex ba ma nekkee dem doon julli di jàng xasida xam li yàlla wax xam doomu aadama. mais mais mais def nga fa combien de temps soo ko commencé miin soo ko commencé ne gëm ne yow di nga fi def dix ans. waaw waaw parce que bu ma fa defee cinq ans ba sam mag bu jigéen bi demee nag. Mhm. sama mag bu jigéen bi demee bi mag bu jigéen bi demee carrément dama toog quoi ma ne nag man nag man maa war a dimbali sama bopp. ni mhm. ma dimbalee sam bopp mooy lan man damay génn fii ñin ñi bëgg nañ ma. Mhm. mais gaa maa ngi jàng ay alxuraan lii. téemaa génn di toog ak ñi di dem si jàkk yeeg yooyu di toog di waxtaan génnee li nekk sam bopp am na loo xam ne yàlla bu la ko yenee mm-hmm. yow mënoo ko yenn sa bopp moom moo la ko yenn moom moo la ko yenn saen comprendre da ngay gëm yàlla si laa commencé mbapat yi fay am man la ñuy woo reseur bi ma dañ bëgg nga tëggal ñu ñaata lan lay fay yëkkati xaalis bu bëri fay ma woo suñu waa kër yi sama boo yeeg ñëpp hmm? ñëpp ñu jël oto ñëw foofu toogandoog man ñi te dañuy gëj gisante Mhm. dañuy ñëw man maay diriger nekk ci kanam di tëgg. foofu ci biir waaw ci biir maa maay doon diriger di tëgg. bu muy tëgg dañuy kontaan. Mhm. dañuy seen xol lu neex mais dañuy xam ne kii maanaam mun nga ko téye mun nga ko tëj mais leen nekk ci moom. Mhm. munoo ko tëj. munoo ko tëj munoo ko tëj euh, Mady ñu ñëw yow ci bi sa euh, maam gaañu laata ñu laata loolu sax excusez damay dem euh, seeti ki nga xam ne rek mooy Mame Ndack moom it euh, bi sëram bi voyagé moom la dénk li nga xam ne rek mooy relève bi toppatoo Mady moom it mu topp ci rek jusqu'au bout ñu dem xool ko daal dellu soit léegi sur la 7 ci seen émission 7 voix li mu dund sax lu metti sama sama grande sœur la gën a dund ak loolu parce que moo ko doon yóbbul añ di ko yóbbul reer di ko dugal xaalis di ko toppatoo ba keroog mu doon dem Espagne nekk naag moom cinquant ans après man ci laa jëlee nag relève bi. di dem camp pénal di dem camp pénal ak maas xaritam bi ñuy dem camp pénal di dem di ñëw di yóbbu ay añ chaque semaine mujj gi maa naan bu leen bu leen sax indi day leen dugal xaalis bi ñu koy dugal ci bitig yi moom lu mu soxla jël sama grande sœur bi moom moo ko daan mais dafa metti parce que nekk ndaw ñu jàpp la ba pare ñu tëj la 10 dafa metti boo xamul nit sax dalay metti asantumaana mu nekk sa mbokk parce que loo xalaatul danga naan dañuy dem rek ñu bàyyi leen mais ñun ñu taxaw ne tëj na 10 ans loolu dafa métti. premier jour bi daf ma def choc. dama toog parce que ak la ma ci gënoon jaaxal sa bu ñuy boo dugalee sa fiche bi ngay seetee Mady dañ naan maam Mady maam Ndack Seck yow lay seet di ci micro affaire daf ma jaaxaloon micro la ñuy yor après nga dugg mais daf defoon choc nag affaire bi parce que mosuma mosuma dund loolu. ma ñëw toog Mady ça va ñu waxtaan. xanaa yërëm parce que nee naa tant que 10 ans motul du génn yërëm day yërëm ba pare dama fa ak ñi fa nekk dama leen yërëm. waaw yërmande moo bu bari moo dugg ci man parce que man ku nekk prison yi dama lay yërëm ñëpp loolu lañ ma xamee waaw maa di moom dafa gëm yàlla parce que dañoo toog waxtaan mu ne lii ndogal la yàllaa ko dogal yooyu noonu mais danga koy encouragé ci loolu doo doo ko gën am lu amal lu ko métti waaw danga koy encouragé ci loolu xam ne destin la te dafa waroon jàll waaw man laa continuer continuer ak moom ba muy dem fee Thiès ñu koy prison Thiès boobu des na neuf ans camp pénal mm-hmm. mm-hmm. après bu mu desee ci lañ koy bu ma dem Thiès seeti ko Fatou Guewel Fatou Guewel Diouf yaay Bodi fa yàgg jàppale Marie depuis campagne Fatou Guewel da ko yàgg jàppale parce que tout le temps Bodi daf ma wax ne ma maam daak sama yaay mi ngi dugal li dañ ko dugal maa di ba mi ngi ko doon taxaw taxawaay bu mel ni yaay ak doom fami fami Fatou Guewel ay seexu Fatou Guewel Ousseynou bu ñu ma gisee sax xam naa dinañ ko xam ñoom sama nee na sama yaay moo leen yar sama nigaay lañ daan tëdd sama sama papa parce que artiste la woon ñoom fa lañ daan nekk sama papa leen jàngal ay way ak ay tëgg ba pare nag Faatu Géwél ak euh, Yaay Maadi ay ay xarit lañ ay lépp lañ daal waaw ba pare jour boobu daf bëri daf ma woo mu ñu defar booli vermicelle ak mbuusi bañ a jox ma xaalis bu bari na ma yóbbu ko cees ma dem jour boobu maa ñoo añandoo ka jour boobu waa prison cees bi ñëpp ci lañ añ ba pare jox ma xaalis bu bari te nag bàyyiwul ba tey sax tout le temps bëri daf may jox xaalis na ma jox dugalal ko Maadi loolu moom dañ ko ci sant di ko gërëm Faatu Géwél parce que bu ko neexoon mu bañ ko def mais mi ngi doon def social loolu ci maadi te man dama bëgg kuy def social moom da koy def. bi muy soog a génn euh, ba muy ba muy soog a génn parce que ba mu juru muy waree génn benn xaritam maas moo dem ba Cees jëli ko mu ñëw mu sangu sama fii la sangoo ci sama kër sangu. bi mu naa kii parce que dafa mel dafa dama jàpp ne dafa tukki woon ba ñëw rek parce que moom ba mu ñëwee rek nekk danga naan is is kii tukkiwul woon parce que yàlla da ko mayoon ngëm-ngëm goo xam ne danga naan kii Europe la nekkoon ñëw dafa am courage te ku am courage danga koy jàppale xaritam bi te ko maas bu mu duggee suñu ko dafa dañoo mel ni ku koo toog vingt ans ku tukki vingt ans ñëw ñëpp a ko accueillir fa dëgg yàlla kii rek gëj ko comme ça nga gëj gis nit rek kon mel na tukki bi yàgg rek loolu lañ ko jàppee woon ah. moom tam mu mel ni ku tikkoon tukki bi yàgg rek ñëw toog ñëw ba pare ñëw rek bokkaat. waaw moom nag jàmbaar parce que man gis naa ñu bari ñoo xam ne dañuy dañuy tëj dañuy tëj ay 1 an 2 ñu désolé mais ku tëdd 10 ans sa dara changé wul ba pare yaa ngi am courage liggéey ne ma sama mag bi ma bokkal ndey ak baay mi ngi Espagne bu Dieye mu ne ma dama bëgg Ibou Dieye jàppale ma Ibou Dieye ne ma lan wax ko lan wax ma lan la bëgg ma ma ne ko loo bëgg a maari ma dama bëgg ay yére ay jàll jaay. maa sama mag bi jox ma xaalis ñu ànd maak moom ba Sandaga jënd ay marchandise muy jaay mais maa dafa bëgg aar aar la bëgg moom aar dafa nekk ci yaramam nekk ci léppam moo tax nag jaay bi sax doxul noonu noonu mu dem ci aar bi continué ci aar bi. waaw mi ngi ci artiste xam nga këru géwél rek këru faramaareen da dangay tëgg da ngay way da ngay def lépp. waaw ku am courage la parce que 10 ans dafa métti. un an rek bu la ci tëjee da ngay am problème asantuma ak 10 ans nga génn nekk sa jàmbaaru bopp nekk continué waat di demaatal sa vie du nekk ci société bi loolu yombul dama li ma koy wax rek mu gën a jàpp mu dëgër rek parce que yàlla jeexul daal. jërëjëf euh, muy lu yéeme lu metti waaye li ñuy wax ne famille euh, day jàppale nit nit dugg na fi kaso du benn du ñaar euh, sa famille rejeté la nga génn def na kaso du noonu mais dix ans de prison li ñuy wax. accompagné d'une famille boo xam ne macha allah wu ñu benn yoon jàpp rek teewoo bàyyi mu métti lool lool lool lool lool ndax fukki at euh, ku ko tëdd euh, du ñaari fan ba tax na yéen ñi nga xam ne yéen ñu dàpp ñu leen di fàttali ci seen émission 7 voix du tey ki ñu dalal mu tudd di Diop doon ndaw euh, am 17 ans en 2010 muy le 30 avril 2010 ñu jàpp ko ci accusation yi nga xam ne rek viol la woon muy lu ko yéem ndax xamu ci nee laalu ci cakkewu ci nekkoon simbakat ñëpp topp ko nit ñi bëgg ko waaye affaire de jalousie tax ñu takkal ko viole ba ñu tëj ko ci fukki at yoo xam ne nee na laalewul deful mu ànd ak dignitéem daal di koy dund ba tey jii mu génnaat nekk artiste euh, di liggéey liggéeyam euh, kon nag mu doon modèle euh, li wax exemple ba tax nañu indi ko ci cette voix du cœur bu ma ñëwee ci ak yow ci li nga xam ne mooy sa maam mm-hmm. juddu nga xamoo sa way jubu jigéen Euh, sa maam moo la defal lépp daanaka mun nañ ne mooy sa yaay. Mm-hmm. bi ngay génn àdduna ci biir bi muy génn àdduna ci biir la la fekk. waaw parce que daf ma fekk jour bi mi bi muy gaañu daf ma fekk maa ngi doon jàng quoi. Mm-hmm. dugg si jàkk ji mi yore sama téere di jàng aar Imran nii yore sama téere mais dama sentir quoi ma musul sentir. Mm-hmm. sama yaram de quoi mais ma ne man sama yaram tey dee na de affaire yooyu quoi. xaaral ma woo sama frère bi maas quoi affaire yooyu ma jékki-jékki sama xel dem si zoo mbay ma ne xaaral ma woo zoo pour laaj ko ne ko an sama maam baa mi si jàmm affaire yooyu quoi jékki-jékki foofu kaso bi dafa am foo xam ne da ngay ran pour woote dañ lay jox téléphone. Mhm. cinq minutes da ngay fay téeméer affaire yooyu quoi si laa jékki-jékkee sama xel na yar si coon bu ndaw ma woo coon mu ma. yàlla def na li gën affaire yooyu quoi. Hmm. ma ko yàlla koom nag an sa maam baa mi si jàmm mu hésité quoi ma ko lan la sa dafa gaañu wala lan la mu ne dafa gaañu nii la mun a demee parce que li ma senti nii. Hmm. du kii quoi affaire yooyu quoi après si laa jugee. bi foofu noonu timis ma ay deux cent personnes ngay nekkal taxaw ma ne leen sa maam dafa gaañu dama bëgg ngeen wàcceel ko léegi kaamil. affaire yooyu ku mun ku wàccee kaamil affaire yooyu def ñaan ñoom ñëpp génne kaamil yi teg ñaanal sama maam ñaanale sama sama yaay sama magu yaay affaire yooyu parce que sama ginnaaw ñi gaañu suñu kër dafa bari. Mhm. am ñoo xamante ni samay mbokk lañ mais dañoo bari waaw ñooñu ñëpp moom limaale. mais euh, ba tey du bokk ak sa maam. waaw bés boobu mën nga ñëwal ci naka la demee woon. waaw bés boobu nelaw ma. guddi ah, gi gi moom nee ma jàng nañ kaamil affaire yooyu mais noonu laa toogee ba ay bàyyi bàyyi bàyyi six heures du matin di jàng di ñaan di jàng di ñaan jàng di ñaan mais sama di jooy quoi parce que dama xam ne man ki ma ñàkk dafa metti mhm. moom moo yar jamonoy booy di ma teetee ba ñëw sama dëju magu yaay jour boobu laay mujjee gisanteeg moom bi nga mujjee gisante moom ban image la woon bi ñuy mujjee comme bu ñu suba suba avant problème bi di am veille bi waaw mm-hmm. dama ñëw fekk mu toog nii nuyu ko affaire yooyu waaw mu ne ma doo toog nga bañ a ñibbi quoi sa maam ah, non man damay damay damay demat asalem tey ngaa toog fii ma ne ko noonu muy hésité teg man quoi jékki-jékki <coughs> si la génnee lu ma dix cent francs jox ma ko quoi jël 1000 francs bi dugal ko nii mais ay wecc 100 francs 100 francs ba mu man 10 la ma jox si la ma ne lii xam nga ñaata la ma ne ko lii ah lii de 1000 francs la mun na ma compter ko ma compter ko une trois quatre cinq six affaire yooyu ba mu mat 10 mun na ma téye ko noonu quoi affaire yooyu quoi si laa ko téye ba biñ may yóbbu police ba biñ may duggee 100 guddi boobu biñ ma dugalee nag 100 net sama xel bi si xaalis bi la nekk. dix pièces. waaw dix pièces ak la ma jox si la ma joxee xaalis bi noonu waa xel bi ba léegi xaw ma ne sax dix lañ may tëj mais sama xel nekk ci moom. pièces yooyu boobu yaa ngi ko yor wala. pièces yore naa ko pièces maa ngi ko mujjee jaayee campagnat laa mujjee jaayee pièces yooyu. ci yan circonstances da ngaa ko xaalis. waaw non dama toogoon. bi ma toogee pièces yi xaw ma. sama ba niñ lay jugé yaa ngi ak pièces yi. Mm, pièces yëpp ñu ngi ci man ndax foofu dañ lay tere xaalis mais dama ko ñawoon comme sama. nëbb ko sama tubéy xotti dugal ko si yëpp ranger la ko affaire yooyu foofu dañ lay tere xaalis téeméer lay may nga téye ko affaire yooyu quoi nag si laa jékki-jékki nag bi ma nekkee fee nag affaire yi commencé di ma sonal pièces yi. ma ne lii xaaraan ma jaay ko benn yoon si laa jaayee pièces yi après sama maay daw ma ne comme sama maam xëy na moom lii la gisoon quoi. dix ans waaw ah, dix pièces yi dix ans yi mais tamit damay sant yàlla tamit. Mm-hmm. Euh, Mady ci sa euh, séjour carcéral carcéral ñàkkul bés boo xam ne doo ko fàtte. Mm-hmm. maanaam bés bu ci gën a métti. Ah. buñ la ko laajee ban lay doon. waaw ah, bu ci boo xam ne li ngay jàmbaar li ngay dëgër saalit nga. waaw non suma saalit ci kaso nii musuma saalit dara maanaam dama doon gëm ni lii man góor yàlla laa parce que toujours bu ma neree saaliti fu ma xoolee ki ñu tëj trente ans mhm. ma damay naan mais man pour pourtant kii man maa ko tane la kii ñu tëj ko quinze ans kii man maa ko tane kii douze ans maa ko tane treize ans ñii ñëpp maa leen tane la man lu mu dee dee tëddagum naa xaaj ba romb xaaj kon man bu may jooytu seen kanam man du ma gor quoi pourtant man gënuma leen bañ bañ bañ war ma tëj dix ma koy jooy seen kanam te ñoom ñu tëj leen loo xam ne ñoom xamaguñ sax ñoom kay waaw mais li ci metti mooy tuuma bi waaw non tuuma bi maanaam tuuma bi wax nit lu mu deful mu tëdd ko xam nga tey kii def bu koy tëdd danaan man maa def dëgg mhm. <coughs> li ma gën a metti nag sama tuuma man moom gën a metti man bu ñu la waxoon maa di lii lañ ko jàppee wala lee amul problème mais tuuma buñ ma tuumal quoi ci ci luñ ma tuumal man moo gënoon yomb ci ci sama life. li nga mënoon am. waaw waaw maanaam jigéen quoi. du mhm. cadre wax bu ñaaw wala cadre. non xam naa xam naa fi nga maanaam li nga xam na tey jii dara doonu la ko jaral. waaw ndax jafewu la woon. waaw jafewu mhm, mhm. ma daal maanaam. loolu mu gën a touché sama life loolu mu gën a metti sama life maanaam boo ma waxaloon leneen garaawul quoi. buñ la waxaloon drogue. leneen lu mu mën ci doon. xam yooyu yëpp du ma ko def. Mhm. du ma naan maa sant yàlla bu baax a baax. Mhm. sàcc téye naa sama làmmiñ sama tànk guddul gëm naa sama bopp xam naa man mhm. que ku gisul gisoo gisoo maam suñu borom di la sàmm mënoon na la rey rawi la rek da nga di sant suñu borom. mu lay loo am bokk ak say frère. say frère lu ñu am bokk ak yow. Mhm. kon war a sant yàlla bu baax baax ban bës la. bés boobu noonu. bés bi nga wax ne ci gën a metti mhm. metti jour bi xale bu jigéen bi dem defi ji kii permis la xaw ma. Mhm. dem defi permis bind sama tur bind turu Saliou pour ñun seet suñu te moom moo ñu moom la moom moo ñu jiiñ. mooy ki leen dugal ci kaso bi. moom laa la expliqué. barki Seydina Mohamed billahi wallahi taalaay ku nekk sa bàmmeel ngay taxaw te lu waay wax fii di ko waxaat fële ñu ma seetaan sama xarit yi. Mhm. ñoom xam nañ ci lu leer. mu ñëw seet si leen. ñëw bëgguñu seet si man dama man dama doon nit koo xamante ne man ku ma xamul sax boo ma seet si damay dem ne leen kii la ñu ne ma diw mën na garde bi nekkoon nekkuma fi. Mhm. ku ma xamul doo ma seet si quoi. c'est incomprendre mhm. mais am ñoo xamante ni jàmm moo leen fay indi. moo leen fay indi yërmande. Mhm. mais moom seetsi bi lan la woon. maanaam seetsi bi après ñun su leen comprendre parce que da doon wax ci moom pour ñun ñu baal ko aax. Hmm? waaw parce que coow yi dafa jug foofu noonu ba pare yegg si suñu. mais recevoir oo leen ko. non déedéet xalaatuñ ko recevoir. léegi yow naka la demee da nga ñëw ñu la am na ku ñëw di la seet. dañ lay wax diw moo lay seet si affaire yooyu ma dem wan ko sa zaal ne ma kii moo ñu dugal fii. co kon ngeen wax nañ leen diw moo lay seesi te taxul sax ngeen xam kan man ba koy war a violé. man xaw ma sax kan la. zaal moo kii ñu dugal fii mooy lay moo ñuy seesi mais yàlla baax na quoi amul problème. léegi après. ma ne zaal ne day xotti permis ma ne ko non bul tooñ bul xotti delloowaat ko rek. garde bi ñëw ne waaw maa di ma ne ko neexul ñun bëgguñu ko gis te mënuñu ko gis affaire yooyu ko am beneen gel bu jógee asalem ñëw sama xarit la woon nag mimi mhm. ñëw dama maa di yëg nga li xew ma ne ko comme naka mu ne ma diw de instant yi seen rumeur mooy daw yéen ndaxate defoo leen dara dara dara dara boobu bi affaire bi amee ku nekk yaa ngi wax mhm. ñoom la ñoo ko def gaynde yi ñii xam rek mhm. ku nekk fi ngay gisee at fi ngay waxee parce que dañuy naan Simba Gaynde moom day tox day naan day gees day mhm. sàcc yàq sa dañ koy génne ci aar génne maanaam lu ñaaw lu ne dañ koy ñëw rek teg la ko teg sa der mhm. période boobu seen doom bi jigéen ñi topp nañu c'est incompréhensible nii di mhm. jugee fee nii di jugee koñ bi di fees dell jigéen ñi ñun dañuy simba ba pare jigéen ñi di ñu xaar tant que pare wuñu kenn jigéen ñi duñu dem c'est incompréhensible ku nekk di wax ñii di wax lu ñaaw. ku du neex ñu bëri nit du la xam. Mhm. day dégg sa tur rek wax ci yow diw xam naa ko kii ku bon la kii. te mhm. amaana sax moom miy wax ci yow lu ñaaw yow xamoo ko. Mhm. soo wax ci moom bay. ba koy jugé. yàlla rek moo mun a jugé. mais doomu aadama du dégg fee wala kii nii la def rek nga ne moom moo ko def. léegi yéen euh, ci ngeen décliné euh, li nga xam ne mooy seet bi recevoir leen ko. Euh, dund seen peine ak dignité euh, dund peine boobu euh, naka la demee ci biir. waaw ci biir ko dundee. tey am na koo xam ne tey mu ngi dund ci biir gisul yaay gisul papa comme yow am na koo xam ne mi ngi mais ndax mën nga ñëwal ci biir naka la demee. waaw mais foofu noonu ci biir ku fa demul doo mun xam nu mu mel. Mhm. am na ñoo xamante ni dañ leen tooñ tëj leen ci erreur. comme yow li nga dund nii. dañ ma tooñ man ak samay morom tëj ma ci erreur mais am ñoo xam ne ñoo def. Mhm. am na ñoo xamante ne dañ leen jaay doole. Mhm. te yàlla rek moo am doole ñun ay doomu aadama lañ. Mhm. mais tamit yàlla moom tamit day bind si jë diw période sàngam période bii bu jotee day dugg kaso période bii bu jotee comme tam xarit. yàlla dafa teg listam. ñii dañ siy tukki ñii dañuy dee ñii ñii ak ñii. yàlla moom moo nangu lool dañuy nangu ne yàlla moo nangu lool. Mhm. mais dund bi dund bi naka la demee foofu ci biir. waaw foofu metti na foofu dañu lay teel fajar. bi ngay njëkk dugg si naka la demee woon. bi may njëkk dugg si ñun ay guddi la ñuy dugg si foofu guddi bu ñu dugg see guddi ñu dugal ci benn néeg tànc ñu ñu ñëpp nii. Mhm. ngay tëdd ñu paqueté la dugg si dugg ñu ñu visité la. visité la si meeku ni xool ndax yoroo. dorog yaram neen yoroo indice. affaire yooyu. loolu tamit seen liggéey la da nga koy nangu. affaire yooyu après nga def rang ñu yore liste lim yow néeg bee ngay dem kii dem néeg bee kii dem néeg bee. bokkoo leen woon néeg. déedéet ñun ñëpp dañoo tas. man ak Saliou ñoo ci bokkoo néeg. ñoo ci bokkul néeg bokk fem même fu ñuy tëdd affaire yooyu quoi léegi foofu heure tëdd bu jotee dañuy tapé silence ñu tapé silence ñëpp def teg. yow kaay fii nga tëdd kii teg kii teg kii teg kii teg kii teg kii. Hmm? ba mel ni mburu yooyu teg leen nii. Mhm. affaire yooyu quoi ñu toj sa xool la yooyu day dem ba day toj yow dara du la sax nit bu la defee dara sax yow. da koy xool di ko ree. Mhm. ndax xam nga yow yow am na loo xam ne yow dund nga ko dund ko. te moom dund ko te yàlla bu mu ko dund. Mhm. Euh, ndax foi bi nekk ci yow ak maanaam dëgg gi nekk ci yow gisoon nga ko ci Saliou. ndax du ñàkk mu saalit ba nga jàpp ci wala dara. saalit dafa dëgëroon man sama gars yi ñoom ñëpp dëgër parce que xam nga lan moo ñuy lan moo lay yokk jom parce que boo ñëwee dégg ñu ne la kaso rek tur bi dafa ngan waaye kaso boo fay ñëw boo fa ñëwee fexeel na nga am fulla am fayda amal fit bul tooñ te bul mus a tooñ ku la tooñul. mbaa mosoo fa am problème. non mus nañ fa am benn problème bu ndaw nag. Mm-hmm. foofu mos nañ fa benn problème bu ndaw non coow la rek ci ay defar de maa ngi koy rappeler comme ay way waali sekk ak affaire yooyu quoi mhm. genre yooyu dañ ko teg nii ñii ne lii lañuy teg lii la ñuy teg dag maa ngi jéegi-jéegi toog nii quoi xamuñu ne man ak moom ay mbokk lañ hmm. c'est incompréhensible mais na gaan jaar fu ñaaw diw waay duñu seetaan kii wax lu ñaaw quoi c'est la jógee dóor ko arrêt xeex ak moom foofu noonu affaire yooyu suñu waa kër yóbbuñu ko kenn yóbbu ko nag. Mhm. après sëriñ mooy télé changé ma ne ba suba ñu woowaat ma. defuñu la pénition. déedéet woowaat ma ne ma maat yii amu fi affaire yooyu ma ne leen ah non man sama mbokk la saaga affaire yooyu ku saaga sama mbokk mooy loolu. Mhm. jàppal bàyyi. après su leen ma ne waaw dugal après si laa dugaat nekkaat fi ma nekk. sa digganteeg Wally Seck. non kooku Wally Baye Fall la. Mhm. sunu mag la sunu xarit la. lu mu yore dafay koy bokk ñëpp lu mu mus a yore. da bokk ñëpp sa papa dee nañu léegi ne day tëdd ba 3 heures du matin mu fëgg ko. waaw kontel ko lu bëri jox ko. dëgg la waali moom day jékki-jékki bàyyi 3 heures du matin ñëw ci biir kër gi fekk ma fi man xaadim sàmba wala day ànd ak sama mag bi Zo mbay mm-hmm. affaire yooyu Aziz tamit ñun ñëpp maa koy nuyu di ko sant ay ñoom El Hadj Kelle ñoom ñëpp samay xarit la ñoom Sori ba ñoom ñëpp Armand Ndiaye tamit. ku baax la moom mm-hmm. bi may nekk fële da doon indi ay dàll ak yére ak ay ñoom laminaat tamit di leen jox waaw di toogal noog man di foofu noonu di tëgg di mm-hmm. bàyyi seen temps mm-hmm. moom tamit Arma maa ngi sant bu baax di ko gërëm ñoom ay laminaar maa ngi sant Maturin sama mag la ñëpp daal c'est la ñëpp daal c'est la famille mais Waly moom Baye Fall la te dafa dafa dafa bëgg mbokk am ci mbokk yërmande Waly bu ñëwee ci kër gi ñëpp lay jox Mm-hmm. guddi bu ñëwee ku fekk ku mu xam ku mu xamul da jox ba bi mu ñëwee fii di seet si Aziz Kele jour boobu du ma fàtte mu soixante quinze mille la yëkkati jox ma mm-hmm. jox ji Fay jox ñëpp booy yëpp kottu ma xëcc ma kon kooku sa mbokk ku ko laal laal la kooku maanaam waxuma nga laal ko sax maam banaam bu dara dul dara premier clip am lépp fii la ko defee ngéwél ak taxi ak lépp ñu mm-hmm. bokk benn lal bi mu doon tëdd fee man moom ak Mass Mbaye mm-hmm. kon kooku daa am lu jot a tey la neex nii rek tey bu dee mu ngi lay seetaan nga am loo koy wax nii en direct lan lay doon. waaw waaw man moom dama koy ñaanal gudd fan ak wér gi yaram laa koy ñaanal lu mu bëgg yal na ko yàlla suñu borom defaral. Mm-hmm. du question dama bëgg mu may ma wala nii sama mag la. sama jërëjëf yàgg may te lii du ma may yàgg na ma teral. <laughs> barki maam Serap Fall. ba pare dama koy ñaanal gudd fan ak wér moo moo xam li mu bëgg ci musique yàlla na fa yegg moom waali mhm. dund gudd fan ak wér gi yaram loolu daal laa koy ñaanal. Mhm. Euh, tey laataa ñuy tàggatoog yow rek dama lay bàyyi nga wax ñu 2010 euh, ba 2020 bi ngay génn lan nga jàngat ak looy tàggoo. waaw ci àdduna 17 ans nga amoon ñu dugal la kaso. Mm-hmm. tey jii koo jàkkaarloo ne ko tëdd naa 10 ans mu ne la déedéet mënul nekk ndax ñaata at nga amoon. nga def ko ak dignité def ko mm-hmm. ak ngor def ko ak fulla euh, daal dellu soit nekkat ci liggéey bi ba tax na tey jii ku bëgg tëgg bongo bu la wooyee nga tëggal ko ku am cérémonie bu la wooyee nga defal ko simb saa ngi nii di la xaaraat ca wokaam mm-hmm. ba muy yu bëri yoo xam ne tey jii rek euh, da nga ñëwaat intégré waat dugaat. dëgg man aar rafet yi dafa yàgg a nekk ci man samay ndijaay samay mag dañu yàgg dund aar may ñu yàgg tëgg may yàgg di leen toppi ba loolu nekk ci man mais li ma jot a dund yooyu si dix ans yeeg yooyu am loo xamante sax da ngay naan garaawul quoi parce que mun naa wax sax ba wax loo xamante ne après mooy loolu quoi damay mujjee obligé rek ñu daal am fu ma ko yamale quoi dix maa ngi koy sant suñu borom moom mi ma ko tegoon moom maa ngi koy sant bu baax a baax moom mi ma ko teggi laat mais mais kii nga xam ne tey ngeen na tëggoon loolu lépp bi mu génnee àdduna yëg nga ko waaw suñu ginnaaw boobu yéen a ngi ci biir waaw ci biir jour boobu naka la demee bi nga ko yëgee benn gel moom ñëw visite wax moo ko ne ma diw gaañu na affaire yi waaw man ne yàlla na ko yàlla xare àjjana parce que yàlla moo xam li muy def. ñun am na loo xamante ne gel bi gel bi tamit anamu. moom tamit fa la ñuy tàggee ni ma xaw ma. moom tamit gaañu la waaw. at xaw ma gis bi xaw ma at tàntam xaw ma. léegi yooyu yëpp fa la ñuy fekk xam nga ñun buñ la tëjee doo génn di dem fenn. Mhm. fa ngay nekk affaire yooyu. dañ li ñëw wax la diw de lii ak lii moo am ci biti affaire yooyu. jàppal bàyyi kon daanaka problème bi euh, euh, ki ko waral gel biñ ne moom la ñu violé que jugé. ñëpp ku ci ah. nekk wàññeeku na. waaw yàlla daal moo. mooy àtte ah, daal suñu borom moom moo mun amaana moom ku góor kooku noonu bu ko leeroon ñun dañuy dugg moom mu faatu. Mhm. du ko mës def. Mhm. kon na toog ak li nga jàng alxuraan ñaanal ko yal na ko yàlla yërëm. waaw ah, dama ko dama war a ñaanal quoi parce que moom doomu aadama la. ni ma sans rancune. non mhm. lu maanaam jéggale nga te jéllale nga. damay jéggale di jéllale ndax Serigne Touba bi ma gëm sax daa jéggale jéllale. ñun ay doom ñun duñu dara maanaam lu mu la def rek mu antu yàlla la neex. Mhm. man fa laa ko jàppee man loo ma def rek. boo jëlee xeer sànni moo ko sax damay mu dal ma damay naan yàlla moo moo bindoon lii sama jëf kiw moo ma war a sànni xeer daf may dal daf may dal. leen ngay tàggoo. li may tàggoo di baalu ñëpp bu dee juum naa tamit. ñoom mhm. ñëpp baal. tey sa njàngum alxuraan fu mu toll. waaw sama jàngu alxuraan ba man nag jàng naa bu baax a baax. Mhm. mais bi mu génnee. da ngaa commencé waat yóbbu saay saay non du question yóbbu saay saay aar bi da lay téye ba yenn yi doo am temps bi quoi nekkoo di firi fi mu ne nii. non instant yii firi tout maa ngi ci. <laughs> waaw maa ngi mais teewul am na yoo xam ne ñun sama. foo tolloon laa foo tolloon. aar Imran laa tolloon. voilà mhm. tolloon. doo ñu mën a way lu tuuti rek. parce que parce que suñu dañ ko war a respecté hmm. parce que mënuma takk jaaro léttu jàppuma tux naa cigarette dégg naa <laughs> naa te ak a dëggu <laughs> moom ah, maa di ku ñu war a jàppale la exemple la ci li nga xam ne rek mooy société bi ñu tuumaal la dix ans nga boole li la neex ak li la nakari eh, daal di boole ña la tuumaaloon eh, ña ko fekke woon ña ko jugé woon ñëpp tey suñu borom jël na leen nga taxaw ak euh, benn nobles ne baal nga leen te yal na leen yàlla xare àjjana jéggale nga ci te jéllale nga du lu mm-hmm. yomb euh, dama lay bàyyi nga jox sa numéro téléphone ñàkkul ñoo xam ne ñu ngi lay seetaan am nañu ay mbokk yoo xam ne euh, dugg nañu kaso ñu am désespoir total seetatuñ leen xoolatuñ leen ñàkkul koo xam ne génn nga kaso amatoo maanaam goût de la vie bëggatoo dara maanaam dem ci yoon bu bon sax moo la gën a jege que dem ci yoon bu baax ñàkkul ñàkkul ñàkkul loo xam ne mën nga ko def ci société ma bàyyi la nga jox sa numéro téléphone pour ko ko soxla. te tamit nag ko bëgg cérémonie bu neex. waaw na ma la ak lépp yow joxe ko <laughs> euh, kon nag euh, numéro bi euh, xaaba daal di koy génnee mooy numéro Mady Diop di leen fàttali ne rek li tax ñu dalal ko tey dafa doon exemple ndax dafa doon koo xam ne tey jii li mu liggéey ak li nga xam ne dund na ko métti na waaye da ko surmonté numéro am di la 76 278 79 01 76 278 79 01 képp koo xam ne bëgg nga ko jàppalewaat pour réinsertion dans la société ñun nga koy jàppale ndax nag euh, man li may wax rek euh, ku ko naw kon naw laa euh, fameem tamit gàcce ngaa laa man ndax euh, nit dund na fi ñaari at wala benn at wala ñetti weeru kaso sax génn sa famille rejeté la mais accepté nañ ko dix ans ñu koy topp ñi tukkee ñi fi nekk ak kenn bàyyiwul kon euh, Mady looy tàggoo. waaw maa ngi tàggoo yéen tamit di leen sant rek. waa 7TV mhm. yéen tamit seen liggéey rafet na. Mhm. munoon ngay ñëw. def neneen ak neneen mais da ngay ñëw mu rafet. Mhm. affaire yooyu mel ni ñu bokk ñun tamit famille. Mhm. affaire yooyu te ñun ñëpp benn lañ. on est mhm. ensemble di gërëm sa caméraman bi sa caméraman bi yow tamit nga doon ku baax affaire yooyu maa ngi sant seen télé bi di leen ñaanal mu gën a jëm ci kanam. tey fooy la HLM wala. tey fii laa HLM bàyyi naa ko man maa ngi doo dem HLM. HLM baax na doy na sigg. <laughs> waa HLM nga nekkal nii de moom bàyyi na dañoo baax ñoom <laughs> ñaanal mais instant bi daal yaa ngi wakaam fi mu ne wakaam ngay simb di waaj <laughs> waaw ah, maa ngi wakaam Medina Medina laay def mm-hmm. nii wakaam mm-hmm. Medina ñoom maas ñoom ñëpp a ngi foofu ñu ngi foofu fi mu ne ah, yow la ñuy xaar kon nag nañ dem euh, daal di fekk ji ko foofu ci fi nga xam ne rek mooy simb ba ca wakaam euh, muy borom baax borom baax la macha allah boo ko jegee rek ngay xam ne borom baax la mbokk yi ñu jaajëfal leen bu baax a baax ci ànd bi di jaajëfal euh, sama waa groupe ñi nga xam ne rek ñoo jàpp ci cadrage bi Souleymane Sy Papa Diop wakaam moom it tey moom moom moo aye gis nga tey <laughs> fala di dem kon nag di jaajëfal bu baax ñëpp ñi nga xam ne ñoo nekk ci production montage fàttewuñu leen euh, Lamine Mbengue ak ñi ci ginnaawam yëpp ñu ngi leen di jaajëfal euh, di ñi nga xam ne ñoo ko doon teewlu kii exemple la képp ku dund nattu xamal ne suñu borom moo la ko teg te comme ni mu ko waxee moom moo ko mën a teggi euh, li ñu leen di wax mooy di leen joxaat dig daje di incha allah ak keneen ci li ci xolam naka la ko dundee fi amaani laa jàngeen jëf merci beaucoup à vous.